comme ni nga ko waxee ñu ngi soog a pare gam euh, CRD bi nga xam ne day euh, waajal li nga xam ne mooy gàmmu euh, feu élage Hadj ab feu El nga xam ne mu ngi ci soixantième édition wam mu bokk nag ci buñ jëlee département bu Thiès événement yi nga xamante ne événement phare ci clandier religieux bi ñu am mu doon loo xamante ne tàmm nañ ko organiser ndax imam Djité mi nga xamante tey moom mooy xalif général famille bi bu suñu mën nañ ne ci ñun la bokk ndax moom mooy président régional imam ak ulema yi nekk si biir région bu Thiès yëpp ñu ñëwoon tey waxtaan ak ñoom li nga xamante ne moom la ñuy xaar pour administration jàppale leen ko lu ci jëm ni fexe ba nga xamante ne kaaraange gi dina doy fexe ba nga xamante ni tamit ku fa ñëw euh, am sa yaram war a sutante di nga am ñoo xam ne dinañ la mën a jël en charge gratuitement mhm. fexe yi tamit ku ne gàmmu wax euh, leeraay ak euh, ndox mu doy ñu yooyu noonu du mën a am ay perturbation ci distribution bi mm. waaye tamit ku wax euh, fu ay nit di daje tamit wax lu ñu xéewaloo dinañ fexe tamit ba nga xamante ni dinañ xool lu ñu leen jàppale ba gat ñii ñëw ñu mën a am xéewal goo xam ne dina doy maintenant lépp lu jëm ci euh, accompagnement logistique mm. Euh, mairie ville bu Thiès de même que conseil départemental bu Thiès engagé wu nañ ndax tàmm nañ di ko def te lañu doon def rek bu ñu deful lu ko raw du ñu def lu ko yées waaw mënuñu wax sax coppite au vrai sens du terme mais jàpp nañ ne ak euh, yoon wi yoon wi jëm surtout si si këru xalif général bi yoon woo xamante ne na ni melokaanam euh, xaw na am ay en tout cas ay ay ay ay jafe-jafe yu ñu si gis te at bu nekk doon nañ ko teg ci table bi ren nag AGEROUTE engagé wu ne dina aménager Dodane bay tamit euh, fan yee rek am na mission Promoville boo xamante ne amoon na département bu Thiès te axe boobu dafa bokk ci axe yi nga xamante ne retenir nañ ko pour réfectionner ko kon ñu jàpp ne même bu dul euh, si fi ak gàmmu gi ndax gàmmu gi la 10 la war a am bu soobee yàlla mais en tout cas au plus tard après gàmmu gi dinañ fexe ba yoon woowu noonu ñu réfectionner ko réhabiliter ko Ah, li ci ruuse mooy engagement yu am solo yu chef de service yëpp jël jiitu ci gouverneur préfet wàcc ci sef de service yëpp pour euh, jàppale euh, l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Djité président des imams et oulémas de Thiès ak euh, ses frères imam Ahmed Lamine Djité imam Mansour Djité imam Serigne Mahmoudane jiite et leurs don dont Nogoy Djité Adama etc. a assuré une organisation parfaite waaw ñu fexe ba organisation bi mucc ay ren comme ni mu daan doone surtout que gëj na am namoon nañ ko amu gi événement bu nit ñi namu la fii ndax mooy événement bi gën a fës ci wàllu diine ak ci aada ci région de Thiès ndax ñu bëri ko fekk si ñuy jóge Casamance ñuy jóge Gambie ñu jóge itali ñu bëri di ko fekk si namoon nañ ko lool macha waaw waaw waaw gis nañ ni euh, chef de service yëpp ku ci nekk ci sa wàllu muy santé. muy service euh, sécurité muy euh, assainissement euh, muy voirie à travers la route muy Sénélec ñëpp service yëpp daal ku lim juum jël nañ ay matuwaay nee nañ pour jàppale imam ak famille bi pour gàmmu gi mucc ay ren. waaw waaw soo gisee sax gàmmu gi ni ko góor gi daan defee la ko imam defee. jiital famille religieuse yëpp ci sax ni ñuy bindee carte yi. Mhm. parce que collaboration entre njiite. Mhm. ak yeneen famille yàgg na. wax naa sànq collaboration góor gi El Hadj Ousseynou jiite ak Serigne Mansour ñoom ñoo àndoon jàngi ndar ak ak Serigne Abdou Aziz junior aussi ànd nañ créer ay association yoo xam ni ñoo tax islam bi dans les années cinquante à quatre-vingt euh, euh, yaatu ci Sénégal. collaboration bi yàgg na sunu maam Paate Jiite moo recevoir oon Cheikh Amadou Bamba en 1915 à depuis lors parce que ki judd woon ci cérémonie boobu ba ñu ngénte ko moom lañ ko tuddee d'ailleurs Serigne du Bamba Jiite mooy actuel chef de quartier Fanok soo demee Dakar parce que mi ngi dund ba léegi yàlla may na ko donc euh, barke ndax ku Serigne Paate Jiite jël jox Serigne Touba ni ko tuddee ko sa bopp mu tuddee ko boppam faaw mu am barke. ba léegi mi ngi Dakar mooy chef de quartier Fandop. donc lëkkaloo famille jiite ak famille si ak famille Mbacke ak yeneen famille yëpp loolu lu yàgg la te Cheikh mi ngi koy perpétuer Cheikh mi ngi gën a doxal loolu ndax Cheikh ku ko xam xam ko ci yaatu dënam waaw moo ko waral sax moo am titre bi di président ouléma jiite ouléma yëpp ñii murit ñii tiijaan ñii xaadir ñii njaasaan ci seen xalañte seen teewaay ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax waaye li jëm ci programme bi incha allahu euh, waa man maay le xalif de la famille Cheikh Ahmed Tidiane jiite di di di président association des imams et oulémas de Thiès. bon li gouverneur wax léegi ci seen sama collaboration ak ñoom vraiment lu am solo la ndaxte ñoo bokk dëkk bi te ñun ñëpp ay patriotes nañu ñu war a liggéeyal suñu réew donc muy religieux yi muy côté état ñun ñëpp ñoo bokk liggéey parce que ñun ñëpp ay acteurs acteurs de la société lañu. waa waaw programme bi incha allahu cette fois ci dañuy bu alxam la ñuy def burdu burdu bi mu ngi commencé jeudi. incha allahu ci jàkkay alaaji Ousseynou jiite le vendredi dañuy def xadaratul juma cette fois si dañ ko jagleel COSCAS fédération association de de fédération des Tijanes ñoom ñooy ñëw pour euh, lal mbalaanu wasifa bi ñu jagle ko euh, Abdou Aziz Al Amin macha allah ñu def ko vendredi su ko defee vendredi incha allah samedi tam dinañ def wàcce kaamil comme ni ko mag ñi daan defee ci kër gi samedi ci suba su ko defee à partir de 16 heure nag. ci la ñuy xaar gouverneur délégation gouvernementale bi ci njiital gouverneur ak délégation bi muy àndal su ko defee ñu commencé cérémonie wax li nga xamee ni rek moo jëm ci réew mi ñaan yàlla yàlla wàcce jàmm ci réew mi ñaan yàlla yàlla président mi nga xam ne moom la ñu yàlla booleel yàlla may koy ndam ci ay projet am yàlla defal ko tawféex. waaw jamono moom moo dox xam nga àddina bi yëpp booy seet ku ci nekk da ngay ñaan évolution évolution bu amee nag soppite day am. léegi li xew ci àddina bi yëpp mooy euh, li war a doy doyatul faw faawuñu kaas ñi war a gérer itam ñu ngi gérer macha allah te nañ koy gérer ànd nañ ceeg dal ndaxte boo demee ci àddina bi tey actuellement foo dem boo seetee à travers le monde ci médias yi gis nga ni entre les populations ak états yi yu bëri mu ngi fay xew ci ay jaxasook yooyu waaye loolu moo ànd ak société ñoo ànd mais li am solo rek ñu ñaan dal ci gouvernement bi comme ni mu ko yàggee def xale yi nga xamee ni tam ñoom ñoo fi nekk itam di kaas seeni droit jàpp ni dañ leen a war a jàppale ñu comprendre leen psychologiquement pour wan leen ni ñoom tam ay patriotes la ñu dañ leen a war a jàppale waaye incha allahu ci biir loolu lépp tam ñu ngi ñaan parent yi ñu participer ci li nga xamee ni moom moo xew ci réew mi pour mën a dànkaafu xale yi waxtaan ak ñoom du xeex du xuloo mais waxtaan ak ñoom wan leen ni àddina lii la tukkee ndaxte alxuraan dane inna ma al usri yusra dara yombul bala ngaa am lu baax foo jaar am ci nekk ci ay jafeñ-jafeñ kon boog li ñuy def rek mooy ñaan yàlla incha allah ñun ñëpp religieux yëpp lëkkaloo nañu di waxtaan ci jumaa yi pour yàlla indi dal ci réew mi yàlla def fi tawféex incha allah. waa ten bi gàmm jàmm la jàmm ndaxte jàmm. moom mooy li nga xam ne la mooy li nga xamee ni moom moo xew ndaxte ñëpp moom la ñuy soxla foog naa ni incha allahu acteurs yi bu ñu jëlee parole dinañ ci gën a yaatu bu baax a baax mais thème bi tey ay jàmm la incha allah. waaw ak umma islami bi yëpp ñu ngi woon ndaxte collaboration direct la ñu am ak euh, les religieux. ndaxte El Hadj Ousseynou Jiital noonu la doxalee woon en tant que président am ñun ñëpp am nañu collaboration surtout waa kër Sëñ Saliou Touré kër El Hadj Mounirou Ndiégène Tivaouane la famille la famille Abdou Aziz Aïdara famille Baye Fall yi ah, Thiénaba ñëpp am nañu collaboration ah, direct ak ñoom te incha allah dina ñëw ci bis bi loolu mooy li nga xamee ni daal moom la ñuy tëralagum jërëjëf jazakumullah xeyran